jeune bu ambitieux la ñu accueillir ko tey ci suñu plateau spécial bu Dakar Actu mu nekk ku nga xamante ne nii dafa tukki biti réew nekk fi nga xamante ne mooy États-Unis waaye di fa liggéey liggéey bu xarañ bu mucc ayib tey ji nag mu daal di ñëw rek ngir daal di waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne mooy jaar-jaaram ak ci li nga xamante ne ci la nekk ma ñamal leen tuuti nag ci wàllum stylisme la nekk ci wàllum mode bi la nekk di ci def nag lu rëy a rëy ñëpp xam ko ci Pape Salif Diouf ñu gën ko xam ci Zalex design ñu dalal ko tey xanaa rek di ko bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan. Zalex nuyu nañu la. waaw fay ah, ah, ah, ñu ngi lay fay nga nekk benn jeune boo xamante ne ni euh, day évoluer ci ni fële ci États-Unis euh, tey nga ñëw ngir wane si ci sa réew bi nga xamante ne moom nga suqeekoo li nga xamante ne yaa ngi ciy yëngu ñu bëri nag xam la ci nga xarañ ci loolu ñu bëggoon rek nga wax ñu li nga xamante ne mooy wàllum stylisme ak wàllum mode nan la nan la la dikkee dafa nekk loo xam ne danga ko jàng wala dafa nekk loo xam ne daf la feeñu nii rek nga daal di koy fil comme ni ñu koy waxee. <laughs> Oh, ah, pour man dafa ñëw naturellement pratiquement bi may gën a nekk xale dama yàgg bëgg affaire de mode comprendre nga parce que souvent maa ngi doon gis sama waa kër xam nga sama tante yi sama yaay yi sama nijaay yi xam nga ils s'habillaient trop bien même xam nga ma leen daan gis suñu war a génn damay ñëw toog sax di leen assister. ndeysaan xam nga juste because li ñuy li ñuy def dafay naa quoi. Mm-hmm. xam nga kut ko kut nag damay am envie nekk mag comme ñoom. xam nga mën a solo man tamit ba rafet. génn xam nga donc je me suis dit que xam naa loolu moo ma topp sax xam nga même bi may dem école tamit ñu bëri étiquette la Pape Salif dafa bëgg solo Pape Salif dafa bëgg moo tax ñu woon ci bi dinañu jaaxal quoi <laughs> mais ni noonu la demee ñu nekk tamit xam nga ay doomu Medina yaa ma a xam xam nga nekk ah am de waa Medina bëgg sañse voilà noonu la demee xam nga feeñ fii <laughs> mhm. xam nga tamit bon ci beneen côté bi sama waa kër papa ñoom dëkk de Thiès. Mhm. xam nga ñoom tamit macha allah ñoom ñu mën sañse loolu am dégg. Mhm. waaw grosso modo non, non, la non, la ñëwee rek man dama gis suivre sama passion quoi. Mhm. waaw xam nga man affaire yi moom mooy loolu. nga daldi créer marque bi nga xamante mom lañuy wax Zalex waye tour bi tour bobu non ndax mën nga ñu ci njëwaatal nan la da diké Zalex qu'est-ce que cela veut dire. Zalex moom daanaka c'est venu naturellement parce que man sama tur dëggantaan Pape Salif Diouf la mais sama. waa école yu bëri xam nga bàyyi zaal lañ ma doon wax xam nga rek mhm. sama gars donc zaal boobu sëñ Saliou xam nga zaal bi laa andi ah xalaat après nag def design zaal xalaat design parce que dama jàpp ni àdduna mhm. lépp lu ñuy def dañ ciy xalaat ba pare mhm. waaw lépp xalaat la xam nga création xalaat la xam nga stylisme xalaat la parce que li ngay création li ngay imaginer ah, pour génne loo xamante ni maanaam du doon copie

Hein? comme ni ko gars yi di defee style Niger bi nga xamné ay costume africain la mu rafet wa Nigeria xam nga mën ko solo lu nek lolou mom dafa dafa mel ni instant bi ni mom mo mo nek nekk au diapason quoi non la démé parce que africain dafa wara a jël li mu quoi pour mhm. man parce que bon je me dis que ni yenen euh yéré occidentaux yi ñi sonni du suñu cosaan quoi mais bon amuñu choix mais pour man tamit waruñu ko jël ba faté manam suñu tenir xaalis maanaam fi mais Zalex yow premier collection yi ma ñëk def sax ci mhm. alex design ay tenues traditionnelles mhm. ay costumes africains yo xamante ñuy defar mu nice mhm. mais biñ ko yobbu gaay ak yeen lañ ko à bras ouverts hein. ba pare wan leen nan lañ koy solee aussi ok yeen style de euh, chaussures nga koy solee xam nga accessoires yi ak yëpp mu jàll et c'était apprécié là-bas voilà ñu ñu ñu ñu kiffé ko trop xam nga

D'accord. Mm-hmm. da ngay wax dëkk yëpp mais doo fàtte Sénégal quoi franchement. Mm, d' si bi instant bi nii yaa ngi doog a lancé li nga xamante ne sa collection hiver. Mm-hmm. fille ci Sénégal mm-hmm. à travers soirée li nga xamante ki nga xamante ne mooy El Hadj Keita mu nekk euh, succès si on peut le dire euh, ainsi parce que gis nañ que sénégalais ak ña fa newoon kife dañ ko lool. Euh, tey jii lan ngay proposé maanaam li nga sénégalais ba nga aussi dinañu gis

xam nga dama teel a dem Thiès fa laa jàngee xam nga sama cycle primaire secondaire tu vois ba yàlla ni muy def xam nga ma jugee fa dem Maroc xam nga ba yàlla def sama dem Amérique comprendre nga. Mhm. man dama jàpp ne li ñu doon wax sànq xam nga mode moom dafa yaatu te mooy indi xalaat boobu zaal xalaat boobu noonu ma lay wax. parce que on avait tendance que sénégalais moom lu muy ñëw lu muy gën a gis boppam ah mooy bazin.

xam def design bi comprendre nga def conception bi après jox gars yi ko war a liggéey rek ñu liggéey ko quoi. Mhm. donc donc c' était c' était c' était aussi simple que ça. Mhm. loolu moo taxoon ñu jël nag xam nga bis bu toll nii xam nga le 31 décembre nga xamante ni fête la euh, ñëpp ay réunir en famille ñu ñu taamu bis boobu aussi pour def ci suñu lancement wu marque parce que ku ne lancement marque wax visibilité donc visibilité nag kenn du ko wax fu am fu ay nit ñëwul quoi. amoon moo moom la amoon xam nga choix wu andi El Hadj Keita nga xam ne ndaanaan la si li muy def mhm. xam nga dëkk Medina ñu yarondoo defandoo yu bëri bëri mhm. bëri xam ñu ne pourquoi pas bu ñu invité nit yi ñu ñëw participer ci show bi xam nga ci tuuti nag ñu sàcc xam nga def défilé bi jéem a lancer suñu message donc je pense que gars yi xam nga recueillir nañ message bi quoi. Uh-huh. Euh, en fait euh, ñu nekk ci Sénégal nga comme ni nga ko waxee bëri na ay kàngam ci wàllum ñaw ci wàllum mode bi te xale bu si mujjee juddu xale boobu moo la dàq ñaw tey jii. mu nekk benn concurrence boo xamante ne nii concurrence bu présente la boo xamante ne nii ñëpp remarqué nañ ko fii yow lan ban analyse ngay def ci loolu noonu. mais pour man pour man amul concurrence sax hein. waaw na na seen rek xam nga li ñu naan ku yoxul yaa wàññi noonu la demee na ñëpp ñëw ñu ñëw mm-hmm. bokk xam nga mu am doole industrie bi yaatu nga xamante ni partout à travers le monde dañu ñoom ñoom ñooy mujjee ñëw fii sax xam nga di root si di mm-hmm. jël si idées yi nekk fii ko fexe ni ñu ko développé pourquoi pas am ay collaboration xam nga liggéey pour man mm-hmm. dañu war a sax di synchroniser xam nga li ma la wax yi

ama benn styliste bu mag su ma juumul États-Unis sax la nekk quoi mhm. mais tenue yi muy sol yëpp si clip yi si mhm. concert yi et tout kooku moo ko moo ko moo moo defar lépp xam nga mhm. donc ce qui veut dire que ñoom ay africain lañ xam nga bu ñu fàtte loolu américains yi noirs yi ay africain lañ dañu bëgg africain moo tax am na yu bëri yoo xam dañ ci gis seen bopp. dañ koy fil xoolal rek su gel yi sénégalais yi africaine yi létto. seen léttu mèche yooyu. ñoom bu ñu ko léttoo mu gën a rafet si ñoom. comprendre nga parce que dañuy sentir sen bopp ci nek africain. comprendre nga mhm. mooy waral lepp lu africain di def ñom dañ koy fil té buñ ko adapter rek da fay jall facilement. Mhm. ñu wax ci li nga xamante moy sa collection bi nga mujjé lancer c'est composé de quoi lan ak lan ak lan mo nek ci collection bobu non ci walum sol. amin c'est-à-dire wa juste euh, parce que man je me dis que ni comme ñu ngi dogo a xam nga waruñu ñu mëna brouiller affaire yi quoi nañ def étape par étape. Mhm. bon man ni ma doon defee mooy par saison la la la doon job quoi tu vois comme saison saison seddaay la ñu nekk xam nga génnee ay ay tracksuit comme nii xam nga. Mhm. ay yeneen yoo xamante ni ay capuchon lay àndal voilà am ay laaf xam nga casquette xam nga pour juste rek gën àndil ko Sénégalais yi nga xamante ni. soxlawul ñu koy dem di ko uti feneen xam nga parce que liggéey bi xam nga mhm. make sure nañ xam nga am na qualité d'abord ba c'est bien fait. xam nga mhm. ba ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ko jóg dañ ci am satisfaction bu paré et puis consommer local la comme on dit wala nga dàq mu jëm ci mbéd bi nga dàq mu jëm ci biir kër gi. nag pour man yow loy jaay yow yaasi wara war a man dama japp ne lepp man luma bëgg diko ko sol rek loolu laa war a fexe jaay ñu make sure di di di joxé tamit qualité bu baax tamit quoi. Mhm. parce que dafa dafa important. Mhm. comprendre nga mais bo ñëwé andi lo xamante amul qualité. amul amul amul différence. ak mhm. li ngay jëndee ci chinois bi quoi. pour mhm. man nit ki boo ko jaayee benn affaire. Mhm. lu tax mu jënd ko. te àq du si am. du am. exactement kon rek xanaa dañuy daal di dem xool li nga xamante ne mooy collection bu bees bi nga xam ne lancé na ko ci hiver bi waaye itamit revisité waat li nga xamante ne ci domaine boobu la nekk ak li nga xam ne jot na ko réaliser moom Zalex. gisandoo euh, li nga xamantene moy collection bi nga xam lancé nako ak ci li nga xamantene mom lay yëngu gis nañu ay pull ay yene tenue yo xamantene ku nekk di nga ci gis sa bop muy fi wala muy ci biti rew Zalex ñu daldi rek waxat ci li nga xamantene moy collection bi ndax dafa am thème wala da ngay yow soy soy créer da ngay xol ci ay thème wala ay genre yoy non bien sûr oui parce que pour man non la war a demee quoi. Mhm. parce que thème bi nak bon mën naa xam nga.

ah nga xam dafa def lu bëri suñu naa ah mën naa ni ñun bu ñu demee Thiès ba di fa jàngee c'est grâce à elle xam nga parce que taux bi sama yaay di voyager xam nga ñu jëlee Médina yóbbu si yóbbuñ ci moom. Mhm. mu jàpp ñu xam nga yar ñu def ci ñun lépp ñu nekk si ñun ba yàlla tudd xam nga suñu génn. Mhm. donc xam nga maanaam dëddu àddunaam boobu mu dëddu xam nga metti nañu mais ay jaam lañ dañuy nangu dogal bu ñu sañoon tey tey nii. ñu dem ba tukki ñibbisi di lancé dara dañ doon ñaan yàlla moom mu fekkee ko. Mhm. comprendre nga. Mhm. gannaaw bi ñu sante xam nga tax yàlla julli si yonent bi ah, gërëm suñu ñaari way jur yi di nuyu suñu papa. di mhm. nuyu suñu yaay Aïda Dieng. comprendre mais moom dafa nekkoon xam nga ku cher ku ku ku sori woon si ñun. bon d' autant plus nag moom bi mu nekkee jeune xam nga surnom ñëpp xamoon nañu max la quoi. waaw loolu moo tax ñu déjee ko nag.

mais gis nañu ne que ñenn ñi ci ñoom am nañu conscience bi lay maanaam léegi dañuy dem di entreprendre di dem di créer seen entreprise ak euh, nu ñu mën a am nu ñuy débuté wee rek lu mu tuuti tuuti rek dinañ ko créer te dinañ si daal di sooxaale ba yegg si fi nga xamante ne mooy euh, ci sommet bi mu mel ni que yow mii bokk nga ci ñooñu ba tey ji yaa ngi dëkku jàmbur États-Unis waaye terewul yaa ngi fay euh, yaa ngi fay raam di échelonné ndànk-ndànk yow mi nga xamante ne am nga expérience boobu noonu tey nañu si may tuuti ndax gis nañu ne que à part li nga xamante ne mooy stylisme bi am nga benn magazine boo xamante ne am nga bokk nga ko ak say partenaire ngeen daal di koy teg eh, rek eh, ngeen di ci wane li nga xamante moom ngeen di liggéey. waaw mooy li nga wax rek man foo man xam nga tout jeune dafa war a gëm boppam quoi foo man comprendre nga. Mhm. warloo xaar dara si kenn warloo xaar dara sax si say parents d' abord ba ba. nga naan yaa xaar keneen ba pare ñuy wax nga naan yaa xaar état. Mhm. pour man yow yaa a sa soit nga un mhm. patience bi été may la xel bi nga diplômes, ba pare am diplôme mhm. je sais pas. parce que pour moi, l'objectif bi homme rek a rek objectif mais l'expérience bi ngay acquérir du du du du du du a yow mi été parce que xam-xam la anytime mën nga ko exploiter. Mhm. pour man jàng bi d' abord. kon jeunes yi loolu laa leen di loolu laa leen di conseiller. Mhm. bëggul jàng aussi tamit nga dem jàng métier comprendre nga. Mhm. kooru métier yëpp yëpp a baax te bala nga koy xam yàlla dimbali la ba nga génn foofu ci ngay xam ni métier rek mooy fay. waaw parce que man mii di wax ak yow franchement musuma embrasser ay affaire ay tailleur wala beneen corps de métier mais regretté naa lu tax. comme yàlla def na tey may yëngul si mode. si mhm. stylisme mhm. regretté naa lu tax jànguma woon nu ñuy ñawee. comprendre nga te te su ma temps bi mayee sax incha allah danaa fexe dem jàngiwaat ko parce que il n'est jamais trop tard. pour apprendre oui. voilà pour man loolu man c'est impératif. waaw boo mënee jàng jàngal yàlla dimbali la nga pare sa jàng am liggéey. sa xel demul si mais métier ak bu mu doon. Mhm. xam nga domaine doon euh, bu mhm. demain dina la jariñ. Mhm. quoi. magazine bi nga xamante mu ngi ah, magazine voilà a ko créé yow ak say collaborateurs nga ngi États-Unis magazine bi ça parle de quoi. magazine bi bon xam magazine people ah. magazine people ça parle du tout showbiz entertainment xam nga sport xam nga. est-ce que di ngeen ci wax ci mbiri Sénégal li xew ci Sénégal. waaw donc moo raison de plus moo tax ñu andi ko. pour mhm. présenter ko comme ñun fële lañ nek pour le moment xam nga dañuy wax mbay ci say wéyu tànk quoi tu vois mais magazine bi y a du tout. Mhm. comprendre nga ni ay rappeur ay américains lañ yo xamante juste dañu drop sen album xam nga bëgg def sen promotion xam nga te c'est très simple hein Smart magazine lañ ko tuddee parce que gis nañu jamono da fay dox quoi. ñëpp téléphone portable yi ñu yor ay smartphone la comprendre nga bi àgg na foofu ku ci nekk sa téléphone yaa ngi ci am whatsapp yaa ngi ci am snapchat yaa ngi ci am instagram yamul rek si côté maanaam divertissement mën nañ si mhm. liggéey leneen ak leneen ak leneen quoi tu mhm. comme ni mu amee nga nga ci download xam nga sa ay heure de prière ak leneen ak leneen ah oui lépp ci biir magasin bi na non njëriñ bari na si si si téléphone yi ñuy yore ñun mhm. yu sophistiqué yi iphone yeeg samsung whatever mais nak, dañu gisoon ni gars dañu demone ba bëgg ray magazine quoi. ok comprendre nga. Mhm. magazine ni souvent foo koy moy bo démé ci si euh, atelier de couture wala yoy juste mu lay jox ay modèles. Ouais. comprendre nga. Mhm. te war na dépasser fofu pour ñun motax ñu am ben concept bo xamanteni. indi ben smart magazine bo xamanteni. ni. lépp lu jeune di liggéey ah muy business ah muy tout tout et tout muy showbiz muy musique bi ah muy sport bi je nga une plateforme pour euh, magazine mhm. download télécharger l'application Zappa. Mhm. téléphone comme mhm. photo. da page bi est parce que man page bi page, nekk quoi. logo bi xam scanner. scanner directement sur ma plateforme ah d'accord activité yi may yëngu yëpp da nga koy gis. ngay jël sa téléphone scanner da nga koy scanner fii rek mu yóbbu la man si sama page. li nga xamante ne moom nga amal sa bopp mi ngi mel ni nga am page Instagram. Mhm. wala Facebook wala yooyu. Mhm. ñu dëxañ ko dugal ko si benn page. xam nga ah, dafa mel dañ ko résumé fii. bu boobaa nag activité yi ngay mën a yëpp. di nga gis mhm. comprendre sa photo shooting yi ngay def. modèle yi ngay présenté interview yi te yamul si loolu rek bëri na njëriñ quoi ba si ñi nga xamante ni xam nga kii nii maag moom ñooy job affaire bi xam nga sama benn gain la. d'accord Stanley Dubois xam nga nekk gain bu jantal boo xamante ni xam nga gis na li may job mu ne ma pourquoi pas Salif xam nga ñu ñu mën a teg benn affaire boo xamante ni. Mhm. mën nañ ko yóbbu partout à travers le monde quoi parce que yamul Amérique sinon doowul woon mën a sax dox Sénégal. ok mais c'est universel. Mhm. mën nañ ko utiliser partout. xam nga musiciens yi xam nga artistes yi xam nga li ma la wax. ak ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu si wàllu mode comprendre nga. ñoom ñëpp am nañ place ci magazine bi. mais est-ce qu'il est une fois arrivé ngén jël benn artiste sénégalais def ko à la une wala ngén djugal ko ci bi page bi wala. mais ñi ngi ci ñi ngi ci démarche yi xam nga gis gis ni bép ñi nga xamante ni dina leen intéressé. Mhm. xam nga suñu grand yi nga xamante ni ñoo nekk si showbiz ñu expliquer leen projet bi comme ça ñom ñu mën ñu accompagner. Mhm. xam nga jox ñu aussi ay conseils parce que amana ni ci domaine bon, ñom ñoo ci ëpp expérience. mais juste ñun dañ leen andil benn liggéey andil leen benn idée bo xamante ñom ñoom nañ ko expliquer. exploité sénégalais exploité ko et voilà quoi pour man jariñ na pour ñep quoi pour man franchement d'accord ouais mi ngi ni ah, xam nga boxeur yi sportif yi lamb ji c'est que man xam nga dama xaw ki uh-huh. sénégalais la fi gissagul motax <laughs> affaire non c'est pas ça mais sénégalais bi mi ngi ni parce que man la

doomu aadama buy liggéey si dara bëgg ñu fësal ko. le nga si magazine bi xam nga. et puis voilà ñëpp jot si ñëpp am accès et puis pour mën li liggéey la. entrepreneuriat parce que les mhm. jeunes ñoo ko defan ah. xam nga te tamit ñu ciy liggéey si ak ay jeunes aussi xam nga ñi nga xamante ñi ngi tàllal ñëpp loxo xam nga ñu job affaire bi c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Voilà, vous l'avez entendu euh, c'est Louise Alex moom mi nga xamante ndaw rewmi la daal di dem feulé ci États-Unis euh, créer fi li nga xamantene moy entreprise am ay collaborateurs yo xamantene ils sont de là-bas nek tamit li nga xamantene moy styliste di yëngu ci walu mode bi di créer yu rafet a rafet ñëwoon nag ren indi leen li nga xamantene moy collection wu hiver bi euh, fi mu daal di koy rek jagleel sénégalais yi daal di koy daal di koy marrainer ki nga xamantene moy mooy comme nu ko waxee un peu affectif hein ñu dalalon ko fi nga xamantene moy suñu plateau Dakar Actu xëcc bu dagul lek dal di dikk jumuma non la waaw non la demee nag yow wax nga lépp ah, xana rek kon dañu koy dal di bàyyi rek mu dal di tagato ak euh, ñi nga xamantene ñokoy sétane muy internetu Dakar Actu yi thank you so much guy yi ah, waa Dakar Actu maa ngi rafetlu sen invitation vraiment ah, seen choix ama simple personne ngeen xam nga rek bëgg japp ci si liggéey bi gis sénégalais bo xamante voilà Mhm. ñu ngi bëgg liggéey bëgg avancer ngeen ne pourquoi pas ñëw invité la nga wax projet yi et tout te franchement aw ma seen fay quoi si côté boobu mais sans plus tarder nag xam nga maa ngi remercier ñëpp ah. Mhm. maa ngi remercier particulièrement sama famille. Mhm. comprendre di nuyu sama papa Cheikh Tidiane Diouf ah di nuyu sama yaay Aïda Dieng comprendre nga moom nga xamante ni. tamit joué na si rôle bu important ah, parce que moom mi ñu may opportunité ñu mën a dem ba Amérique comprendre mettre ñu dans de bonnes conditions tu vois yàlla dimbali ñu ñu yëngu si mode xam nga di yëngu ci stylisme mu appuyer ñu dooleel ñu ñaanoon ñu xam nga ñun amuñu fayam quoi tu vois di remercier aussi tamit sama soxna xam nga muy Aminata Betts. machallah allah comme on le dit rek hein, derrière chaque grand homme il y a une grande dame bu koy épauler di ka couver et tout donc chapeau à elle tamit xam nga wa këram.

rakk waaw du jeex waaw mënul ñàkk kulim kulim doo doo matal. kulim jiw pour ñu bañ fàtte kenn ñi ngi nuyu ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp quoi franchement. <laughs> d' accord Zalex ngeen fi amoon ci plateau Dakar Actu moom nag daal di nay gërëm a gërëm a gërëm a nuyoo nuyoo ba heure bi jeex. parce que moo lim demee noonu koo fàtte mu mere la. <laughs> d' accord yow tamit suñu système bu ñaawul bi. jarul dóor damay tëj émission bi. <laughs> yow léegi pour calmer la sax yow magasin bi dama la koy may. comme ça ah, waaw waaw wax wax la <laughs> waaw mais di wax ni xam nga ah, nañ nañ nañ sénégalais la xam nga doomu Afrique la xam nga di yëngu dara si business bi xam nga parce que y' a plein d'autres surprises hein. mhm. ah. incha peu di ngeen gis ay affaires doy réaliser et puis dinañ leen présenter. voilà gis ngeen dóor na ci plateau bi ba pare ma mais normal ah ne duñu tëj léegi nag man damay émission bi voilà Zalex ngeen doon am fii daal euh, ba émission bi jeex léegi clôturer di leen jox dig ci plateau ak beneen artiste wala beneen entrepreneur boo xamante jeune la fii ci Dakar Actu